ba ci kanam tuuti ci euh, ñaareelu pàcc bi voilà merci beaucoup dañuy taxaw tuuti ci actualité politique bi Chérif il y a une dizaine de jours environ moy aljuma bële weesu ci lañu ñu njitu woon réew mi dina taxaw wax kan la nar a tànn ngir mu nek candidat euh, coalition Benno Bokk Yaakaar certainement mais jamono ji luñu ñu nemmeeku ci biir APR moom euh, dafa melni sax parti buy wajja ndax mën nañu japp ni patch buy parti buy wajja a tas la parce que kenn déglootul kenn ku nek mi ngi jéem dox ku nek mi ngi jéeg a taxaw moo waa ji tas euh, mënuñ ko waxee noonu parce que APR moom c'est un parti boo xamante ne habitué nañu à yu mel nii parce que comme ni koy waxee rek ci nin ko sosee ak ni màggee la day parti boo xamante daanaka bu mooyee Macky Sall mi nga xamante ni moo ko sos nekk njiit la jiite ko boobu ba léegi euh, kenn déggalatul kenn euh, maanaam ñàkk kilifa am na fa li ko waral nag. moom ñi ngi koy dëggal parce que ba léegi quand même moom mi ngi ak euh, euh, quand même mi ngi garder en tout cas la main ci li nga xamante ni moom mooy parti bi et je pense que ñi nga xamante ni ñoo ànd ak xam nañ loolu parce que boo déggee sax mais les responsables yi nga xam ne ñi ngi yëkkati bi a jural ci nañ ko mais ñu doon wax parti boo xamante ne amul structuration looloo looloo ko waral waral parce que mhm. organisation bi amu ko mhm. moom Macky Sall moo ko bëggee noonu parce que compté wul la ci parti bi dafa am chance am benn coalition boo xamante ci biir am na ay parti yoo xamante ne quand même c'est des partis structurés parti traditionnel yoo xamante yàgg nañ fi mu ànd ak ñoom ci dynamique bi nga xamante ne en tout cas ci la nekk jëm ci wàll woowu moom moo tax nag comme ni nga ko waxee mhm. réglage yi xaw a yéex peut-être ci ñoom seen parti boobu étant donné que euh, tànn yombul parce que coow li tamit en tout cas kenn lañ fi dégg ci ñi fi desagum mu yëkëti loxom mu ne candidat la mooy mooy Diouf Sarr ku ne xam na ni sa candidature xëy na daf ko def pour euh, bokk ci langue bi rek. mais xam na ñeneen ñi c'est de façon implicite. waaye on xam ne ñoom dañoo bëgg a nekk candidat dañu koo waxul mais seen i actes yi ñuy posé certainement que ça soit ñoom wala seen i sympathisant loolu lay nduroon. ils ont été même auditionné ci wàllu mooy Amadou Ba parce que. dégg nañ ko mm, fa. ci Faye tamit bi mu jaaree fa la nga xamante ne mooy ca 7TV ci mooy mën a ndur fay mais mm. dafa mais ni jëlul responsabilité mu wax carrément lu mu bëgg mi dafa doon jéem a joxe ay gage de loyauté et cetera et je pense que ça c'est pas suffisant même si bon bon xool. bokk na ci ñin mën a considérer comme étant parmi les favoris comme ki nga xamante ne également mooy Abdoulaye Daouda Diallo parce que ñoom ñaar lañ ci gën a dégg te seen i ñooñ rek ñoom ñoo nekk en tout cas di.

mujj la ñaar ñi nga xamante ne ñoom la seen ñooñ gën a coow ci mhm. seen coalition bi xëccoo bi muy ki ñu ànd ak Amadou Ba ak ñi ànd ak Abdoulaye Daouda Diallo ku ci nekk mhm. am na ay argument yoo xamante teg nga ko mais am na ay force yoo xamante am na ay faiblesse yoo xamante ni ñi ngi ci yow ñoo goo xamante ni lu ci mën am bon comme mbiram pàcc que day loo xamante ni xëy na ñoom xam mm-hmm. de l' expérience am fu jaar jaar xëy na succès ko du yomb c' pas ce ne sera pas facile parce que ñoom ñëpp xëy na am na ci lu ñoo xamante ni amuñ mm-hmm. avantage bi nga xamante ni Macky Sall amoon na ko et li gënoon am solo te ñu xam ko mooy ànd bi ñoo ànd bi te ànd boobu xëy na moom mi nga xamante ni mooy seen njiit mi ngi def les réglages yi di xool-xool goo xamante ni ci mën a ànd bu mën a may ñu mën a am victoire suñ ko deful mm-hmm. écoutez am nañ en face aussi gis nañu opposition bi mi ngi organiser wu am na ci yeneen candidat yoo xamante tamit am nañ vision pour le Sénégal muy ni je pense que war na neexal élection yoo xamante ni buñ ci jógee relever les défis. sans compter ñi jóge ci coalition bi euh, jamono ji ne candidat lañu ko ci mel ay Assome Diatta Aminata Touré euh, Mor Talla bés bu président Macky Sall demee ba tànn ba pare loolu yan njeexital la mën a indi ci biir APR du moment où ñu bëri dafa mel ni dañoo taxaw nii rek di ko xaar mu wax. xañ na ñu wax ñoom seen seen sentiment. dafa mel ni naat euh, tekk tekkaaral bi dafa jur déjà risque bi muy am mooy. nit ñi commencé di manifester wu ku nekk di wax sa préférence par rapport ak. candidat diw wala candidat bële euh, boo seetloo tey euh, am amna ben journal beaucoup beaucoup bu ko mm. Ibrahima Baba Sall nga xamné moy premier vice-président assemblée nationale mom euh waxna ni mm-hmm. euh, ñom sen préférence Abdoulaye Daouda Diallo mm-hmm. je pense buñu continuer ni le président continuer peut-être de jouer la montre comme ni ko beneen journal bindé muy euh conséquence bi lool la en fait mm-hmm. nit ñi commencé génn ku ci nekk di wax yow lan nga xalaat ci ban candidat nga euh, disons jox sa baat te loolu pour man après day indi benn anarchie boo xam ni kenn du ko mën a maîtriser déjà boo seetee les hommes d'affaires sax ñenn ñi nga xam ni bokkuñu APR nga xam ni ay disons mën nañ leen considérer comme des gens neutres à peu près nee nañu ñoom euh, Amadou Ba mooy seen candidat les hommes d'affaires euh, dégg nga démb Marwan Ben euh, Jeune Afrique Jeune euh, hmm. préférence Amadou donc finalement ku ci euh, levier pression. Hmm. pour essayer atteindre le président Macky parce que après tout le président Macky comme carte blanche ci désigner le candidat moom rek mooy décider en fait. waaw c'est lui seul le maître du jeu ak nga nangu ko nga bañ ko nangu c'est lui seul le maître du jeu parce que dañ ko jox carte blanche mais damay dellu si rek que mm, pour man loolu euh, waroon nañ ci gën di taxaw par rapport ak la démocratie dans les partis pour man euh, li gënoon mm-hmm. mooy euh, ki Sall sax organiser ko nekk disons euh, parce que moom mooy joxe pouvoir bi euh, ci Benno Bokk Yaakaar ñi fi nekk ñëpp moo leen fal hmm. mu organiser ay primaire hmm. nga xam ni nit ñi dinañ am sañ-sañ ñi jugee sax euh, Fuuta ñi jugee Linguère ñi jugee feneen dinañ am sañ-sañ euh, am une représentativité boo xam ni dañ koy wane fësal ko xam ni lii ñu xam ni lii c'est une démocratie euh, boo xam ni ci disons APR la bokk. Mm. beneen bi mooy scrutin bi ñu jëm. dafa nekk scrutin à haut risque pour Benno Bokk Yaakaar parce que man dama jàpp que ni euh, te Amadou Ba sax wax na ko ci interview bu mu def ak Maïmouna Ndour Faye daat ni euh, bu ñu gañewul Euh, dakaar second tour la ñu jëm. te bu ñu damee second tour gis nañ alliance yi souvent day favorable lu ci bëri opposition bi euh, gis nañ ko ci Macky Sall gis nañ ko ci le président Abdoulaye Wade ñoom ñëpp ba ñuy gagné. Mm. deuxième tour la ñu gagné moo tax pour man euh, le combat de benn Bokk Yaakaar pour man mi ngi nekk ci seen unité bu ñu demee ba xaajaloo ku ci nekk bëgg a ber sawaar rek ñoom ñu ngi indil seen bopp problème. Mm. je pense que loolu la ñu war a gën a mën a tirer leçon. Mm. ñu jéem euh, peut-être euh, fii dire diir dinañ xam euh, ban candidat lañu ñu choisir. Hmm, Cheikh Tidiane Diaw scénario bi ni njitu réew mi ci ay jamono bañ ko fi laaj ne ko ndax day bok am du bok dafa ne woon lii la don bañ ne bu waxé ni du bok liggéey dotul amati ci biir parteem et puis on se retrouve ci même situation bi à moins de 7 mois de la présidentielle. Mhm. waaw waxoon na ko te je pense que bon quelque part on peut dire que l'avenir lui a donné. Oui. un peu raison. Mm -hmm. mais aussi mon je pense que

mu jël décision ci ca lendemain ba ñëpp gis nañu. Mhm. nu mu mujjee et je pense que aussi euh, li aussi même même même chose lañuy ñuy parce que. bu kenn nax kenn choix bo xamé ni day def unanimité c'est pas possible mhm. ko choisir dina am ñeneen ñoo xamé ni euh, duñ ci and léegi nak après ndax dañuy and ak mom wala dañuy ber seen daara c'est une autre question et puis ber seen aussi est-ce que ça va euh, avoir un impact ça ça reste à confirmer parce que ñi ñi nekk foofu yëpp ñi ñuy tudd ñi ñëpp ku ci nekk base locale nga yor sa base boobu euh, est-ce que su génnee mon andi impact ci euh, scrutin parce que dañuy wax Benno Bokk Benno Bokk yakar mais fii c' pas Benno mon moi il faut fal président de la République ce ne sont pas les électeurs de Benno Bokk yakar ce sont les citoyens ñoom il fal hmm. euh, président de la République ak profil bu mu tu ci choisir sénégalais dans leur majorité su les neexul kooku du je pense que euh, c'est valable pour euh, Moi, je pense que c'est une affaire euh, qui concerne leur organisation. Nous, avons. temps. Euh, choisir ses candidats euh, conséquence après sommes euh, le concerné quoi mais que toute la population ne soit pas je sais pas focus sur le candidat de Benno Bokk car comme ça a été sur le cas du mandat mandat le concerné mhm. mais là sommes le concerné c'est c'est leur propre cuisine je pense que ñoom le concerné dinañ xam nu muy mujjé mais en tout état ça suscite de l'intérêt parce que c'est c'est c'est le quand on lañ koy euh, c'est c'est c'est la majorité c'est le c'est le c'est le parti au pouvoir mm. et en plus même li wax ni que le deuxième tour là mort mi ngi soulever ben quatre figures suñ démé deuxième tour à chaque fois on voit que le candidat sortant mais là on va se retrouver du deuxième tour bon le candidat le le candidat c'est un camp qui ne se représente pas voilà exactement parce que ce n'était pas le cas en 2000 en 2012 c'était pas le cas C'était c'est un président qui, qui était parti au deuxième tour. Mais là, ce sera un nouveau candidat, même si non, ce sera sous la bannière. Non, mais il sera pas neutre, en fait. De toute façon, c'est une élection avec, avec, avec plusieurs. Non, mais, mais, euh, il ne sera pas, mais, moi, il ne sera pas neutre. Même moi qui vous beaucoup Mais bien sûr, du moment. Bien sûr, Mais c'est une nouvelle tête. C'est une nouvelle tête. Euh, Cher, oui, c'est ça aussi. nous avons un profil, donc nous doon wax né Macky Sall mom lay def comme dauphin xam na xëy na la peut-être ñu gëna a accentué wu ci ki nga xamné mom modi Abdoulaye Daouda Diallo ak ki nga xamné mom modi Amadou Ba mais gis nañ fi sax ki nga xamné mom modi Amadou Mam Diop sank Cheikh mi ngi koy wax Macky Sall donté pression day am gis nañ fi li xew ci ñettel 3e euh, mandat gis nañ également ci kan la wara mëna mën euh, euh, à la tête mais bobu tay tey mi ngi ci li nga xamné mom modi tek tek tekk bi des fois tek tek tekkaaral bi également mëna jur li nga xamné mom modi jangoro gis nañ li li euh, jot xew ci siège bu euh, APR euh, dernièrement quand wu Diouf Sar ak quand ki nga xamné mom modi moo Amadou Ba également xow ci li nga xamné mom modi sen bir mais lu ci mënti doon mm. je pense que Benno Bokk Yaakaar djubo mom mo len di arranger ndax buñu féwulé il faut noter que lolu n'est pas sans conséquence parce que après ap dispersion lañuy néméku ci li nga xamné mom modi sen bir seen lu ci mënti doon mom njiit mom mo yor ci cëggalu guyam mm-hmm. fii ak kii fan peut-être dina parce que mm-hmm. opposition mm-hmm. Sénégal dernière semaine rien ne garantit une unité. au euh, sein de l'opposition parce que ku intérêt. en tout cas c'est voilà euh, l'avenir nous édifiera merci.